asalaamaaleykum sunu mbokki internet yi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel sbt média point com amaan nañu mbégte ak kontante ñëw fii tey euh, Fass Benno seet fi benn xale boo xam si ne nii fii nga xam si ni nii yi toll nañ fa bëgg na faa mu nekk xale euh, coow li bëri si yi boo gi ci ko demagul arène waaye mbapat yi coow ko muy plateau plateau Fass Benno ñu ngi leen nuyu waaw angibillah bisimillah inna wal yàlla ginnaaw ñu sama ñaari waajur di yërëm sama yaay di yërëm sama yaay di si teg dinaan jërëjëfe Serigne Touba jaaraam Cheikh Amadou Karam Mbacké Noreyni jaraw lax almisbah xarafa maa leen di fay tey ci lu gàtt rek boo doon wax kan mooy euh, plateau ak la moo ko booleeg làmb waaw plateau ndaw rek waaw juddoo Dakar plateau màggee Fass defee jeunesse sëpp Fass te ku ne làmb ne Fass kon su ma bëriwul damaa tooñ waaw parce que dama yaru ci bëri waaw ah, yaru doonu bëri non doonu ma nag waaw mais am naa ay ndijaay yu mais damay jàpp ne doon ma ko parce que ndaw laa te damaa ñëw jàng bëri dama xam nga may dem géej leen topp ba daal waaw di sàkku ñaan tamit si waa Fass wax naa ne xamul mbër mu ndaw xamul koy takk ngemb abonné leen ngeen ba seen tous cloche notification bu ko defee koo xam ne kenn la ci man muy ngaala dérange ah. mais mais plateau Euh, cool yi ba tool yi plateau plateau fu ma toll ñaan ma dama jëli plateau yow plateau yow yow yow yow yow plateau plateau lan la sax ba pare sax. waaw xam nga rek palaato nekk booy xam nga rek man loo ma ne damay daan toog plateau tur boobu dem ba law coow li tamit xam rek sant yàlla tamit parce que lan dañoo nekk ay booy am jom. gars yi tamit suñ jugee mbapat lay bëri malgré mais suñ jugee tamit mag yëpp ay jug topp ñu xam nga di sant yàlla bu baax tamit ndax lan liggéey bu ñuy def di sant tamit sama waaye gi di xam ni lépp ñoom la. tey fu ñu mën a taxaw ñu ñëpp respecté ñu waa Fass Benno la tax maa leen remercier ñoom ñëpp waaw. léegi kañ nga ñëw ci Mbapat. man 2000 naa ne 2017 daal laa commencé bëre quoi 2017. man maa ngi 16 combats 15 victoire benn défaite. bëri na de. ah mais tamit sant yàlla te des na de. du yam fii rek incha allah rabi des na lu bëri. 16 combats 15 victoire benn waaw di sant yàlla di ñaan yàlla mu yokk di ñaan yàlla mu yokk lii xam nga dafa neex tamit lii jom moo ma ko may ku romb bégee xam nga sant yàlla nag bu xam ni jamaane bi mooy loolu te incha allahu rabi daa am fu ñu bëgg léegi si làmb parce que à chaque fois naan man je suis né pour être un dama judd pour doon champion te nit mënu ma ko teree def incha allahu rabi fi nekk sa morom yi dañoo tàng jër fi doon ni ay boo yu tàng jër fi nekk loolu dinañ si ñëw si kanam après ci kanam mais ci mbapat bi laa bëgg ñu des ci ba léegi ci mbapat bi tey ñoo xam si nii euh, sa premier combat mbapat waaw sama premier combat mbapat maa ngi bëree benn boy bu ñu naan Pascal fii la dëkk si ginnaaw noonu xam nga may bëre mu ëppoon ma trop gars yi naan wuy da rey da koy rey xam mais yàlla suturaal moom parce que am na lu ma man parce que fit bi mu ngi fi te jom baa fi tamit parce que man lépp dañ may yar ci jom waaw parce que jom moo jiitu fit xam nga ma bëre yàlla suturaal ma daan amur bi dugg ma nag xam rek yàlla def nga nekk teel a. noo bëree dañoo sama juum la bëre. léewtoo mu daw xam nga rek nit soo ko ëppee doole ngay jéem a waaxu muy waaxu ma mbaal ko dóor ko mbot waaw maa la wax lii te des na yeneen sax barki ndaamal daaru deuxième combat sama deuxième combat mag benn boobu naan cité ba affiye dëkk maintenant fii sama waay la nag ndeysaan waaw xam nga ma jël tàng bi waaw yéen bul ma wax loo sama bëri waaye parce que bëgguma gars yi sóoraale ma am booy dañoo bëri wax waaw te man melu ma noonu xam nga ñuy sóoraal yi euh, tey bu ñu dalalee day leen bett ndax koo xam si nii xàmmeegun ko ci arène bi SBT ñëw dalal la parce que am nañ ñu ne man daanaanu làmb nga moo tax tey ñu dalal la seen émission mag muy seetu mbër nga xam ne ñàkk eh, maanaam ñàkk abonné SBT wóoru ndax seen émission seetu mbër wax naa amul mu seetee war na laa seet SBT ñëpp la fi nekkal mais dama bëgg ñu waxtaane làmb sa deuxième combat nga ne bi nga jëlee tànk Ah, waaw dama jël tànk bi daw riñaat ko wër ko doom ba yenn ba ci kaw dóor si suuf sànq sa biir wax da nga nee ndaanaan nekk guma ndaanaan moom lañ bëgg a nekk parce que ñu mbër bu ndaw soo teel def sa bopp ndaanaan doo yegg te sama yenn grand yi à chaque fois damay daan ñëw sax ñu ne ma fàtte ko xamoo dara su mel ñoom ngaala ñoom aada xam nga waaw di leen sant tamit ci côté boobu parce que à chaque fois dañu may jox ku ma daan dañu may naan daanoo sa morom waaw ah, tuuti naa torom nag mais li si kanam loolu li sama daanaan naa li ñu gën a dem ñi gën a xam kii plateau Jamalien bi laa lay tegal nii de ba benn ah. ah, waaw. <laughs> wax naa ne tey émission bi ah day ala doome ah émission bi tey day wàcc wax naa leen ko ah, di nuyu waa diaspora bi nga xam ne dañu bàyyi xel SBT Média ah lu ñu dugal ñoom ñooy jëkk vi ah di commenter ah mi ngi noonu tey kin dalal mooy plateau bu fas Benno mais plateau ñu des si sa ñu ngi si woon sa deuxième combat yaakaar naa léegi si troisième combat yoo kat. non bi su ma juumul benn booy bu naan nu mu tëddee waay. guy gi benn boobu ñu naan guy gi quatre-vingt-quinze waaw ah, bi daal su ma jumul Dakar plateau bi yàlla suturaal ma tamit quoi ma daan ko mais boobu moom fàtte naa détail bi si mais xam na rek waaw yàlla suturaal na ma daan naa ko. léegi fi ma bëgg taxar mooy kan moo la daan. kan moo ma daan benn boobu ñu naan Thiatou Colobane di ko sant tamit bu baax parce que moo tax plateau nekk mbër malgré ba ma koy daan naagu rek lu ma lay wax rek moo tax dama si. combat ngeen bëree ñaar. sama sama treizième combat la ma daan sama treizième combat la ma daan. waaw ma jóge waat sant yàlla xam ma jooy jooy jooy métti nag Baye Fall plateau dafa bañ defet ndaamal yi nii toog parce que ndaamal daaru dafa bañ defet xam rek sama grand yi ñoom tafa xam nga ngaa la xam nga gars yi ñaaxaan ma ko ma bëre xam ni ma lu ma amul ci man la neex barki ndaamal daaru sa waay sama waxu démb rek dama judd pour doon champion te barki Serigne Bamba booy ma gis jamono jii nii ma ko teree doon de incha allah. léegi sa dañeel combat maa ngi bëreeg benn boobu ñu naan Baye Daaru si terrain bi fii nii waaw yàlla suturaal ma quoi awa rek. moom. tamit xam rek dama ñëw yanu ba man nu ma toll. Baye guy rëy trop waaye tollul ni kër yi te pourtant pour nga gor ko da ngay sonn da ngay ñaq tey te yàlla lu ma gën lu ma gën a a nekk ci écurie yi teel a waane ma dama waane damay waaw loolu moom mooy sama défaut sax mun naa ne waaw. Fass Benno yan ak yan champion nga fa nekk. Fass Benno ku ne Fass Benno ne aar xel dem ci Ada Fass xel dem ci ay Modou Yacine ñoom gaskel sama gars yi maa leen di big up tamit ñoom ñëpp xam nga waaw di remercier suñu coach El Hadj Koundoul Cheikh maa leen di bëggee bu wér a wér aw ma seen fay te nu ma mel ñoom la Baye Fall man du ma dem ci làmb ba ñu xeeb ma. te li ñuy gën a dem ñuy gën a xam kuy Jamalien bi. ñu génn si mi ngi noonu ñu génn si phase mbapat bi ah def na 16 combats ci li mu wax xam naa am na ñoo xam sax ñu ngi naan non booy bi dafa toog nii rek di lim ay gars yoo xam ne mooy loolu yaa ngi xam naa loolu après du ñàkk mu yóbbu la VAR ñu ñu vérifier affaire yi mais 16 combats ah 15 victoire benn défaite si mbapat ah vraiment euh, li mu wane euh, yoon wu yoon bu naaj la ah di la encouragé di la di la di la wax na nga gën a góorgóorlu lamb xam nga li koy may moom mooy entraînement léegi ñu ñëw ci mbàccum gerte mi léegi da ngaa nga ne léegi comme confirmé nga si mbappal bi léegi da ngaa bëgg wàcc si mbàccum gerte mi arène bi léegi yow koo soxla non xam nga booy man ma di lim quoi parce que xam rek sama yenn ganaay nee nañ bu ma lim parce que defaguma dara waaw defaguma dara pare nga ne yow doo lim pourquoi non non defaguma dara xamul dama ne defaguma dara parce que tey man déggoo ñu ne la nit dangay def tekk-tekk wan la yoon da ngay am kilifa man fu ñu ma sama gars yi ne acca fii la acca fii la aw ma mbër bu may ragal ci àdduna kon ma bàyyi tekki am yoo xam ne say morom a ngeen bëri ngeen mayante xaalis du ma wax tur waaye ma wax tur mais loolu lii ma tontu la sa waay man moom du ma lay wax benn tur yow yaa xam ñi nga bëgg a yaa xam ñi nekk sam xel am na ñoo xamante ni say morom lan yaa ngi dégg defagun fi dara amagun benn combat te làmb xam na leen ndax comme comme li nga wax rek dañoo toj mbapat yi confirmé xam nga lu gën a naa bi tax mais kon na seen deux combats wala trois combats. Baye Fall xam nga lu gën a bon ci àdduna nga yaakaar dara mu tas. Ah. su ma nee yow laay bëreel ah. bëreel ma ak yow fekk man si yow rek laa basé wu nu may def du ma waye de moo tax sama grand dañ may naan defal tekk-tekk wala yoon man palaato bu faas boobu taxaw booy yéen yéen yéen laay waxal man palaato bu faas jamalien bi laa wax de sama yoon ku fa taxaw dama lay fàq sama yoon ku fa taxaw dama lay fàq nga jàll barki Sëriñ Bamba booy ba mu leen gën waane billaay wallaay non Baye Fall man man mooy loolu ko lii ma tontu la loo baax ma ñaar ko te duma la ma yow xanaa niroo sa grand boobu ngaal déranger ngaal déranger fii laa ko wax ku ma wax mu ne ma moom waxu ma sax mu ne ma jox leen ma diw xanaa da ngaa tàppet. non kooku Fass benn mun na fa dëkk pare nekk nekk tàppet sax xanaa dëkk too Fass. kooku ndaanaan la mais ñun xam nga ñun Fass ñun Fass dañ ñoo yaree benn philosophie ñun dañoo nit ko quoi man su ma modernisé wul bëre du ma ko yàq. yaa ngi fi ma fi nekk di tëkku yenn tëkku yu métti yeeg yoo xam ne mooy loolu mais l'essentiel dama la wax benn affaire dama la ne loo bax tey ma ngeer ko koo ma wax ma ne la nii laa koy daane wala maa ko mën wala mooy loolu maa lay déglu Siteu yow amul may fi dara du mel ni yenn booy bëri wax yooyu noonu naan ay daan naa ak daan naa lii ak lii ak lii yow koo Siteu ma wax la am na am na am na am na am na benn booy bu nekk yëmbal euh, boo xam si ne nii euh, Euh, ci Cobra Cobra bu Pikine Nord lay lay àndal Cobra booy bu ndaanaanu bëri la maam Thierno borom daaru ndaanaanu bëri la doon nañu wax sax combat am digganteem ak digganteem ak digganteem après taxawut léegi est-ce que koo andil borom daaru di nga laale. borom daaru dama koy siyaare ba pare. parce que man taalibe borom daaru la almisbaax lépp benn la <laughs> man ak booy boobu du làmb. du làmb. barki Serigne Touba Mbacke su ñëwee léegi ma duma ko léegi sa kanam. ay champion la daan mbapat maanaam maanaam kenn du contesté moom maanaam maanaam moom daanaan la. déggoo ma ne la mbapat koo daan bu ko jàppee champion koo daan bu ko jàppee champion jàppal ku la daan champion la mais koo daan bu ko ja la de barki Serigne Touba Mbacke man booyee sax mooy loolu. pour man bëgg naa plateau sax plateau bi ay plateau kaane la ay plateau yoo xam si ni mais ay plateau xaw ma affaire yooyu noonu yow booy ñeme plateau booy dañ ma. ñu daan toog plateau. waaw xam nga benn affaire daan toog plateau. <laughs> yàlla yàlla dafa def nii plateau may borom te ñëpp si man lañ bëgg a toog te plateau bi maa ko yor ku ma neex laay dékk sama micro ku ma neexul doo wax. am na booy yoo xam ne palaato moom fas yéene cee toog duñ xalaatuñ ko sax man ak booy du làmb booy xam lu ma metti si booy ñu may àndal xam nañ ko ku booy ku ma si daan du la bett. barki Serigne Touba Mbacke sama booy si booy yi nii ku ma si daan dañu may naan waa na parce que xam nañu maa mu ñoom mooy loolu wóor na yàlla. moom day diis si yow xam naa jëruma la koy tudd sax moom day diis si yow. Cheikh booy sawar ma moom parce que dafa bëri wax Laurent dafa doomu jaam ak. barki Serigne Touba du pousse du passe. Oh, wóor na daamal daaru du pousse du passe kooku su ma ko téyee nga mu bàyyi àdduna. kooku su ma ko téye mu baax na magam sax laaw la yëngu impressionné ma waxuma ak moom Laurent du ma ak moom barki Serigne Touba Mbacke ñu ma xam dëgg xam nañu ma du ma ak moom wóor na Serigne Touba Mbacke. est-ce du li nga moo neex wala nga toog sa bi nooy nii wala sa gars yi wër la mafia bi moo tax nga naan Laurent moom non sa waay la de. yàlla dafa ne plateau si ndékki lu neex la dëkk su ma bëree mu neex su ma tuusee mu neex nee naa la Laurent mbala pax bu amul fenn laa indil. barki ndaamal daaru pomme bi teero patato ko ñooke maa ngi moom du làmb sax wóor na Serigne Touba ci loxo te dama ko mën ëpp ko doole daa ko bëri ëpp ko sañ-sañu làmb te naa la wax benn affaire dañuy ñoom dañuy juum quoi seen wax naan ay làmb ay aaru bandeek ay non non làmb affaire de nit la géew la mu soo gis ay lamb nit di reyante ci tribune beeg wala dora ci biir géew bi la te man ak Laurent bis ma téewee ngembam nga xam ne Laurent du dara yaa koy weddi waat. moom jàpp ngembam. kenn du jàpp ngembam. Laurent su xeexee sama dóor ko mu daanu barki ndaamal daaru ndaamal Laurent ñi mu woo seen combat taxaw nga xeex ak moom loolu moom ñi mu woo da nga koy wax nii rek c'est que man <laughs> nga rek booy booy nee bi am suukar sa micro bi xëy na moo am suukar quoi ci booy moo tax ngay kii nii di safal nii Laurent suñ sooñ tëjoon si néeg nga yow sa néeg yow nga tëj ñu fa soo bee bunt bi xam la may plateau wàccal kii waay yaa ngi koy rey barki ndaamal daaru yoon yi bokkul sax yoon yi bokk te nga fee bàyyi Laurent xool ko a oyof. ma déggoo may la man cité ma ndax Laurent Kass di Laurent Kass moo ne ci làmb am na yeneen booy. su mel ne bu ngor. làmb am na combat nag quoi di ñaan tamit mu dugg si jàmm mais maam làmb la dans l'avenir. ngor Baye Fall bi tarkindaa bi. Jamaliye bi mu taalibi almis bi tiitul ragalul dara. lu taxaw ci kanamam jàpp na ni moo la mën sama ndawaay bi gëm-gëm moo may lu ma am ci làmb amul mbër bu may reculer doomu Fass daa déggoo ma namu ma champion. ay champion rek a ma dar la laay dox di tiit wala di ragal boo yoo xam ne non man booy du làmb sax Baye Fall. ñeme ngaa ñeme ngaa jël avant Siteu bu Ngor. pour lan. yaa xaalis la. comme ba ñu fay la ay nangam ngay bàyyi mu jàll pour lan te Siteu bu Ngor yow Siteu bu moom sax soo déggoo may la boo yëpp laa wax de boo yëpp boo yi ngay yëpp. barki ndaamal daaru soo ñu si néeg sa néeg yow nga ubbi danga may naan booy plateau wàccal booy yaa xam nga Siteu bu Ngor bu baax. si dem gor xam naa ko. est-ce que xam nga ko. xam naa ko nii ne rek soxla mooy sax ma leen di xam. xamoo ko kay moo tax nga de non te li ñuy gën a dem may gën a diis si ñoom. billaay walaay taalaay jamaalien bi mooy wax ak yow Baye Fall barki Serigne Touba yéen laay waxal de li ñuy gën a dem mooy gën a diis yéen yéen. kan bo kan. ñaari booy yu nga tudd laay mën a wax surtout booy Laurent wax boobu noonu. noonu si moom moo ko teree neex su barki Serigne Touba bis ma ko xam nga ne di ma tax a jëliwaat Laurent ma loolu laa bëgg pour ma wan ne ko lu ko wallaxu moo ko si ndoxu barki Serigne Touba Mbacké boobu du dara wóor na Serigne Touba booy duñ dara man sama déggoo may la ma daan. foo jaama defal leen plateau spécial yéen ñaar ngeen toog nii nii ñu taabale. man plateau boobu sax bëgguma ko parce que bëgguma muy toog man plateau plateau bi benn la fi mu ngi nii. kon su ma la déggee yow Laurent toog plateau. non non ci biir géew bi la. ci terrain bi waaw ma defaral ko après ñëw toog encouragé ko ne ko fils dewal day baax wàññil wax ji. mafia tril de. maay mafia jamalien bi doomu faas bi du ragal. doomu faas laa ah, du ma ragal su ma bëriwul damaa yab su ma damaa yab yàlla waxuma la yab faas yab yàlla su ma ragalee. am nga licence. man waaw léegi mu waaw am baax na. am nga licence wala damay damay parce que Laurent dama ko jëli yaa ngi dégg gars yi ma ki ngay jëli amul licence may ma laaj ko mu génn licence am an sa licence yow. non man corona bee tax rek sunu noon bu nekk si dëkk bi war fi jógee moo tax régulariser rek a si des te incha allah yàggatul dara Laurent yow xam naa sa biir wax jàpp naa ne Laurent mooy loolu xam naa mooy loolu. barki Serigne Touba naa ko duma sa kana ba ngay ut coton di ko ko jox parce que deret boobu noonu day jeexal coton ardo di jégal waat ci moo boobu noonu sax mais man ak Laurent billaay du pousse de passe barki Serigne Touba Mbacke. xool ko wax ko man fas naa ko jëlee xool. dama leen a dooj dàq leen bëre ëpp leen fit. billaay wallaay talaahi. ñoo dàq mobiliser. <laughs> Riven 2 nga taxaw a nga gaale palaato ñu indi la fi. jëloo oto ñëw de Riven 2 nga taxaw a nga gàlle palaato ñu indi la fi sant yàlla nag sant yàlla mais li ñu gën a dem ñi gën a xam kuy plateau yàggatul dara. ñu ngi seen émission seetu mbër la ñu dalaloon ki nga xam ne moom moo di plateau dégg ngeen adversaire yi fi wax ah nee na pare na pour Siteu bu Siteu bu Ngor moom booy day di si moom non bàyyi rek bas kanam yaa non non dafa nànk sa diggante ak Laurent yéen ñaar ñëpp ay xale ngeen war ngeen mën a bëri mayante xaalis te làmb la joo xam si nii làmb amateur xam ban promoteur moo ci daal non boobu moom xam naa man ko war dëgg sax benn yoon ndax làmb ko tëgg doo ko doo ko rëcc soo ko tëggee xam nga làmb daan rek ambiance su ma feccee mu neex su ma bëree mu neex yi nga wax ni yëpp Laurent da cee toog da koy maye sax man dama see tëdd da see xam nga toog mënoo nekk à l'aise parce que yaa ngi toog nii di kii nii man dama see tëdd xaal la mu jàll. wër na sëriñ Touba su ma bàqoo mu bàyyi àdduna daamal daaru xam na loolu plateau tous mbal la pax bi ah ngaa la àll ma ko leneen lay waxaat wër na Serigne Bamba. est-ce que xam nga ne est-ce xam nga ne Laurent bokk na si xale yi gën a gën a dégg galan ci làmb ji même même Liss Ndiago mi magam sax nga xam dafa dégg galan Laurent xoolu ko ci dégg galan. dugal Fass nga ne plateau si Baara Baara Mbaye laa koy indil sax parce que mbalapax day diis si moom. Fass bi nag. non Fass yow loolu loolu de loolu mooy loolu mooy suñu devise loolu mënul ñàkk. waaw yow Fass bi rek daan na mbër Fass ngemb mbër indi ko ngemb mu dongali leneen da say xajul ba Serigne Touba Mbacke. yéen waa Fass gis naa da ngeen a commencé da ngeen a commencé tàpp daal xamu nu demee noonu parce que seen seen beneen mbër bi sax gis fan yi maa ngi dégg muy muy ruux di delloo amaat bi digganteem ak digganteem ak Balla Gaye. waaw ah, man moom yooyu mënu ma see sori parce que amul tax. Gris mature la ko am na ñu am na ñu ko dar am na ñu ko yor estafam la am ñeneen la loolu man sama yoon nekk xam la laa am mbëru Fass ma gunge ko lu ma ko mën a gungee jàppale ko nu ko mën a jàppalee ñaanal ko nu ma ko mën a ñaanalee waaw mais Gris ku ko xam. histoire histoire la moom Fass delloo avance moom maa ngi koy doo gis. non amaana nu du delloo avance man ku ma ko timbax ma rimbax la ko du delloo avance. la kon lan la. non la loolu da ngay dem seet si Gris Bordeaux fu mu dëkk kër ko lu xew waaw. yéen waa Fass yéen a commencé dellu lo parce que fi mu ne nii sa am na sa wax ci suuf naa ma plateau fi mu ne wax Laurent mais boo ko joxoon avance bi suba mu delloo. doo compter xaalis nga lebal ko promoteur après mu fay la. barki Serigne Touba Mbacke soo ma joxee avance ma jox ko yaay booy bi léegi mu togg añ. billahi wallahi wa taalaahi amul lu may ragal ci mbër. parce que yorul mbër yorul lu lu mbër yor te yoruma ko ndaama li mooy wax yow amul lu mbër yor te yoruma ko te li gën a dem. ñuy gën a xam Palato wax boobu noonu dama bëgg nga jàpp nga noté lu ñu gën a dem gën xam palaat barki ndaamal daaru yàggatul dara affaire yi léegi sunu noon bi jóge fi feebar bi léegi mu jóge fi après di nga xam dinaa ko daan ba pare incha allahu rabi bis bu jëlee avance parce que xam naa tapet la ñemewu ma Laurent tey suñu dayoo suruq ma ne ko awal nii foo la yow yabu ma sax bay léew toog man Laurent laa la ma sax bay toog man parce que yow dafa mel ni man nga xoolal Laurent nga wax ak moom. non Laurent mënu ma kaa xool parce que damay rus su ko xoolee kanamu tàppet la yow damay rus sama yaram day daw Laurent su ma ko xoolee sama yaram day daw. borom lu na pax borom gu na gaan. borom l'espagnol ka ma gente laa xente ba beene ngay waxal de su ma ko daanee naa la wax lii loolu. amateur yi mbokk yi ngi nii boo xam si nii ku ko tëgg wax naa la doo saari sa xaalis promoteur yi Assis Ndiaye ah ñoom ñoom Baye Ndiaye ñoom Pa Abdou Fall ah ñoom Fallou Ndiaye Assane Ndiaye Sambay production. Ah, ah nu mu tuddati fay production Mor Mbaye ngéwal gi production sëñ Mor Ndiaye ngéwal production promoteurs yi nekk ci làmb combat ngi nii boo xam si ni diggante Laurent Lors ah bi nga xam si ni jaama gën si kàmbaa lay ngembo ak ki nga xam si ni moom moo di plateau bu Fass Benno làmb la loo xam si ni làmb du ko dàq mais plateau nag ñu ngi ci cëppaandawal émission bi te ko wax mbër wax ñu koy jàppale ñu bàyyi la nga gërëm ñu lay jàppale waaw yàlla dafa Plateau daa nekk booy boo xam ne sa mën naa ne sama yii nii sama mafia yi ñoo ma teel def mbër bu mag te yeggaguma fa. parce que xeebuñu seen mbër ñu ngi koy jàppale ni mu waree di sant sama sama grand sama xarit sama lépp kempes waaw ñu naan ko baawoy kooku di sant sama booy ñaan yi Assane Gongo Jawala mu ngi nii di sant sama. paa nga ñii booy lan yow paa nga. non paa mais soo. non non non kon paa nga. barki Serigne Touba Mbacke 2001 laa judd. billaay wallaay le 12 décembre 2001 man mi pas mais mais xam nga rek ami d'enfance ñun dañoo tàmm moderne moderniser moo boobu booy. di sant tamit ñëpp gannaaw yi may jaabal ñoom Bente Café gaa yëpp sama gaa yi ñoom ngaala Bente ñee xam waaw di sant tamit kër gu may ne boo xam ne mère Rose mère boobu noonu maa ngi koy sant bu baax. mère lekk beñe bi rek. waaw xam naa ni weeje maan nga bul tax loraa xam secret bi te waru ko xam waaw maire bi maa ngi koy siyaare bu baax waa kër yi ñoom agrra bi ñëpp maa leen di bëgge di tamit sama waa koñ ese booy buñ jàppee ba tey bàyyi mooy booy yi nii buñ jàppee ba tey bàyyiwuñu waa dégg fas Fass Médina Gueule Tapée Colobane Grand Dakar Rebeuss ñaacokeer maa ngi bëggee ñëpp waaw mbëru Fass yi maa ku si mel ni sama grand anti bi si aada Fass bente ñee boogaa xam ku lim da ngay jum Siteu bu anti maam Balla ak yeneen gars yi waaw parce yaatu na daal te xam ne jàppee nañ ma comme seen rax quoi ñu ngi may jàppale nu mu waree damay am sa gis naa ñu si taxawee sant sama nami moom compagnon de guerre ngaa la déranger waaw ay momo xam nga ñoom Badara gars yëpp maa leen di bëggee ak sama grand Mbala maa ngi koy siyaare bu baax Mbala tey amaana moo waral lii waaw di sant Mbala bu baax sant grand yu may jàppale ñu may ñaanal surtout ñu may ñaanal maa baax du ma tudd dëkk quoi parce que booy booy jàmm gën yi xam naa leen ay yoorumaan lañ xam nga waa Tivaouane Peulh tamit di sant sama yaay sama yaay maa ngi koy sant ak sama papa gis naa ni ñu may jàppalee quoi xeebuñ seen doom amaana di sand waa Fass Delorme mi ñëpp fépp fu Plateau am tànk rek fépp fu Plateau mu sa dëgg tànk mbir Fass jàppale mu ngi lay sant sama grand yi ñoom Pa Omar ñoom Mbës xam nga maa ngi ni ñoom Sipi waaw moom ma dugal fu may defee boxe maa ngi koy gërëm bu baax. te lu tax ma mën a massacrer Laurent moom la barki Serigne Touba Mbacké di gërëm sama gaay yëpp ñoom Moussa Boye Biggi gaay maa ngi siyaare gaay ku lim juum ay ñoom am maa ngi bëggee ñëpp di di leen wax nag maa leen taalal seen loxo képp kuy Fass maa ngi képp kuy doomu Fass dëkk Fass juddoo Fass yaroo Fass man plateau maa lay taalal sa loxo xam ni ndaw laa damaa war a dem di sàkku ñaan parce ndaw soo nekkee si bërëb da ngay sàkku ñaan xam nga tey amaana émission bi sax soo xoolee sax nu may waxee ni nga xam ne dañ ma si éduqué dañ ma yar waaw parce que ñun ñun ku ñeme dañ laa dee dañ noonu la demee ñun dañuy teg si yoon moo tax ma ne la mbër da nga war am ñu lay jàppale xam nga tey boo yi nga tudd yëpp amaana dañuy wax dans leer nit da nga war a wax loo xam day jëriñ ku day neex a dégg ñun doo ñu seet si ñuy wax luñ neex non non heure wax ñu neex su jotee dina jot mais tey dañuy ànd ak dal di leen gërëm yéen tamit waa télé bi di ñaan yàlla xam nga foo leen foo bëgg a yegg xam nga yàlla yeggale leen fa yéen tamit xeeboo leen kenn te ngeen yéen yamale woo leen mbër bu ndaw yamale woo leen mbër bu mag waaw di leen ñaanal loolu ñu si séntu yàlla nañ ko yàlla may di gërëm gaa yëpp képp ku may jàppale maa ngi lay maa ngi lay gërëm mënuma lim ñëpp di ñu gis borom Cambérène maa ngi koy bu baax a baax di nuyu sama gaa yi xam ni kontaana trop te incha allahu rabbi dama am wax bu ma leen dig ñaari wax daa ñaari wax bu ma leen dig man plateau fa je suis et je vais ramener le roi des arènes en face incha allah maa jàng de Baye maanaam ci histoire làmb moom dugg gu fi nga ne yow da nga dugal. barki ndaamal daaru plateau da koy dugal noté bind ko jamaal yem ndaamal yi nii da ko dugal ci kàttanu yàlla li ñuy gën a dem ñuy gën a xam incha allahu rabbi. waaw di ñaan tamit gars yi xam nga gën ma jàppale tamit waaw mobilisation bi gis naa nu mel waaw ah, gars yi su ma jugee ñëppay jóg. ñi gën ma jàppale parce que mbër mu ndaw jàppale la wóor ñàkku ma ko sax quoi mais di gën mu yokku parce que nit looy yëngu da ngay gën da ngay ñaan mu yàlla mu yokku xam nga waaw ñu may ñaanal tamit surtout ñoom sëñ Seex alxuraan teewoon pël maa siyaare sama ndijaay sukki maa ngi siyaare ku son ci la waaw bilaay waa gale bi tamit may nekk encore une fois ñoom ngóone xam nga sama papa Cheikh Omar waaw moom moom da ciy jàpp bu baax a baax sama yenn gannaaw képp kuy bëggee plateau rek jàppale plateau sant na la gërëm na la ñaan yàlla jaamu yàgg faas 100 pour cent Fass bi tamit dëggu barke Serigne Touba gën a taxaw ñaan yàlla mbëru Fass yëpp yàlla may leen ndam di sant waa Rëbës ñoom duwul moteur di ko ñaanal ndam caaru Rëbës ndam xam nga sama gars yi maa leen di siyaare waa Rëbës gis naa ni ñu ma jàppee tamit dañ ma téye comme seen doom ñoom tamit waaw man Baye Fall aw ma aw ma aw ma sens interdit fenn man fu ma dox dañ may dalal fu ma dem dañ may dalal ndax lan yar lu ma lay wax rek man dañ ma éduqué. ci la <laughs> su waay man waxu Laurent sax bëgguma nga koy wax barke Serigne Touba Mbacke parce que yow yaa gën a xam ni man maamul Laurent. foo ko teg. ndaamal daal soo jeexee xoolal bul defaat benn émission nag mais yow xam nga ne Laurent sa diggante moom loolu yàggatul léegi promoteur di wax si su ma demee léegi dox si. daa jëliwaat Laurent sax. Laurent su ma bëreeg moom deux minutes sama gars yi dañ dama leen yëpp waaw. su ma bëreeg benn coup laa koy dóor mu xam dafa gaaw miir parce que ñoom mooy loolu xam naa lu ñuy dund dafa gaaw a miir ku nga koy jox taj góos bu saf da pour yow fal la plaqué la déedéet fàq ba mu ñëw juutal romb ko dem sa yoon. Laurent yow laay waxal man la plateau bu faa jëlal avance bi. ak moom. sama dernier moom ak moom yàlla yàlla defal jàmm yàlla defal ma jàmm. aduna mu ngi ci kër aduna mu ngi ci kanam làmb mu ngi ci kanam xam nga waaw di ñaan yàlla tamit promoteur yi ñëw seet ñu rek mooy loolu li ci kanam raw li bët sama wax ci bëri. promoteur yi moom combat ba pare mën naa taxaw na ba pare waaw mais sant yàlla rek. billaay walaay taalaay. combat bu neex rek bëgg te combat bu neex rek. amul ma neex xamul dama ne amul ma neex dama bëgg nga xàcc xaalis lebal ko promoteur bi soo demee mu fay la ma reeree ko léegi léegi. na Serigne Touba Mbacke xaalis bi yàqu la te temps yi mooy loolu lambaay neexul waaw gis nga te ñun ay cas social lañ waaw gis nga. waaw di bëgg tamit xam nga rek sama booyam yaa ngi nii dañ ma ñëw seet tamit xam nga jox leen kàddu ñu rafetlu affaire bi waaw mooy loolu. jàmbaar ñu lay ziar. waaw delloo ziar a wax ci. ah kii de lu la mën a wax si moom moom bëri na moom wax dëgg fa yàlla buñ naree wax moom mooy mën naa ne fi la fanaan quoi ndaxte moom suñu booy bu baax la quoi ñoo foondoo ñoo defandoo lépp ah dañ daan bëre moom di foo mu ñuy daan ñu koy daan mun naa ne sax lu mu ñuy daan sax mooy ëpp man moom mun naa di bu di bu nekkee xale ba léegi benn yoon laaxa daan wax dëgg fa yàlla billaay champion bu mag la te gëm naa ne nga boo ko joxee benn war moom fii nii barki alxuraan kom du taxaw ak moom da koy daan barki Serigne Touba ñun pare nañ pour sacrifier jox ko lépp ah parce que xam ne ni kii champion la yàgg-yàgg dañuy andi suñu roi des arènes fii nii billaahi ñun daal duñ koy dig daal mooy daal muy entraîner respecter mu euh, respecter ay waajuram ak ay xaritam bu mu bu mu xeeb kenn daal bu mu xeeb kenn daal ak respect tam entraînement yi bàyyi jigéen ñi tamit di teel a tëdd waaw lekk ba suur naan ma mandi ñëw jàpp gars yi daw na affaire comme Laurent boobu noonu bàyyi kooku dañ koy fàq yóbbu ko rek loolu problème barki Serigne Touba maam naa moom. mu ngi noonu seen émission seeti mbër la ñu ngi fii nii euh, Fass Benno seet si ki nga xam si ne moom moo di moom moo di plateau ah, ah bu ko defee euh, ñu jël benn gramme mu sànni ci kàddu bu ko defee ñu jeexal li nga xam si ni moom moo di moom moo di émission bi waaw tey seen émission seeti mbër spécial plateau la ñu ñëwoon fii nii ah Fass Benno jëti ko sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi ziar bu baax a baax. mën a wax si xale bi nga xam si moom mooy plateau. Ah, ñi ngi ziar ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan euh, seen chaîne bi di gërëm le fait que yéen ngeen déplacé wu uniquement pour moom di leen wax ne moom xale bu ko jar la parce que vraiment euh, bëggoon na carrément ci ginnaaw en arrière ngeen ñëw seetaan li nga xamante ne moom mooy combat yi nga xam ne def na ko mbapat combat yi mi def mbapat si ngay xam ne kii champion la waaw champion dëgg moo nekk nii boo xam ne ñun dañuy nekk ci ginnaawam parce que tey ji xam nañ ne buñ ko jàppalee day dem Fass nag noonu la mel dafa bëri ay ñoo xamante ne tey ay champion lañ loolu je pense que tradition la fi te wax dëgg yàlla xale bu neex àndal la xale bu euh, ñame li muy def la mën li muy def la bokkul ak ci xale yi nga xam dañuy toog di wax te duñ ko jëfee moom li muy wax loolu lay jëfee te man combat yi nga xamante ne fekkee naa ko yëpp daf ma éblouir def ci li nga xamante ne ñun moom lañ ko doon xaaree te wax dëgg yàlla xale bu baax la. ci bëre bi mu bëree euh, ci champion yi nga xam ne ku wax fas ku wax làmb tudd leen te ñu nekk Fass bëre bi mu bëree ban bëre nga gis ci mag ñi mu yor ko. moom bëre bi nga xam ne. Zallo yoroon na ko. Zallo bëre bi nga xamante ne tey jii noo munti toll day dox sa garde yor na yor na bëre boobu ak bëre tafaagay bi nga xamante ne mooy caacaay bi ne ci moom waaw. su ma maanaam boo ko xoolee da gis da gis sa bopp ci tafaa da ngay moom Tafa Gueye waaye da gis si moom ki nga xam ne moom moo di Salo te ñooñu kenn mënu wax làmb génn lañ Sénégal déedéet déedéet déedéet làmb nag dafa xaw dafa xaw a doy waaye am na ñu bëri tey ji ñi ngi ci biir làmb ji nekk fa fenn foo xam ne position boo xamante ne amaana tey ji ñu ne seen ginnaaw ñoo leen fa yóbbu rek ak média beeg affaire yooyu mais champion yi dëgg dëgg dëgg dëgg ñii la ñii ngeen war a jël ndax ñi ñooy champion yi moom mi ngi def ay preuve su nekk te champion dëgg moo nekk nii man maa lay wax loolu tey waaw. donc mi ngi noonu SBT Média la seen émission seeti mbër ñu ñëwoon fi nga xam se ni moom moo di Fass Benno seet si xale boo xam se ni mi ngi ci làmb di yëngu bu baax a baax a baax bu ko defee euh, lan ngay tëjee rek. waaw xanaa encore une fois de di ko encouragé moom di ko encouragé bu baax a baax parce que tey jii mu gën a góorgóorlu ci li nga xamante ne moom mooy yoon bi mu nekk te respecté entraînement bu baax a baax parce que waaw boo liggéeyee rek da ngay jariñu ñi nga xamante ne tey jii am nañ talent ñu bëree bëri liggéeyuñu woon seen talent yóbbuwu leen fenn ndax lan liggéeyuñu woon ndax dafa am lu mu laaj lu bëree bëree bëri boo amee talent liggéeyoo sa talent du la yóbbu fenn kon loolu laa koy gën a ñaax mu gën a góorgóorlu ci entraînement yi respecté ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay grand am te supporters yi nga xam ñi ngi si ginnaaw ñi ngi si ginnaawam mu leen di bàyyi xel tout le temps waa noonu la demee. mu ngi noonu Fass Benno lan ñëwoon seet plateau lan nga ci yokk rek. waaw di gërëm tamit sama patron parce que dama am métier. waaw damay liggéey jëwriñ maa ngi koy siyaare bu baax a baax. man peinture oto laay liggéey. foofu mbër métier am na. waaw ci mbër métier. waaw di gërëm jëwriñ sama patron bu baax a baax jàpp na si bu baax. jëwriñ maa ngi koy siyaare encore une fois. di gërëm tamit sama grand Kempes di ko siyaaraat. Kempes waaw kuy sonn ci man la bilaay walaay taalaay sama booy ñoom Salim Pafal grand koñ ba ñëpp aw ma seen fay daal ku lim da ngay juum xam ni mënoo lim ñu ko may mais billaay sama xol lim na ñëpp wër na Serigne Touba di leen wax ñi gën a jàpp fu ma teg sama bët mu fa ba tey roi des arènes wala dara billaay walaay daal loraan sax du ma si jibile billaay walaay roi des arènes xol laay waxee Fass dama fa war a indi roi des arènes billaay walaay tallaahi te incha allahu rabbi yàlla baax na daal tamit di sant sama sëriñ tamit bu baax almisbah xara fall di ko ñaan mu gën ñu def ay taalibe waaw parce que ñun waaw nurul jamaal sama waa daayira maa ngi leen di siyaare ñëpp di gërëm tamit ngaala tamit kii sama doomu ndey la ngaala déranger dafa sonn ci man tey amaan li yëpp moom la billahi wallahi taala di ko ñaanal lu mu bëgg ci làmb yàlla na ko yaam làmb may di gërëm sama boy ñoom Pierre ñoom Dominique xam nga encore une fois waa ñoom Mère Rose surtout Mère Rose kooku sama yaay la quoi maa ko yaayoo sama bopp Mère Rose maa ko bëggal sama bopp waa kër gi ñëpp maa ngi bëggee ñoom xam nga rek ñoom Rabi xam nga ñoom Mbala Sipi Père Jean gars yi maa ngi leen di siyaare gis naa daal lu ñu ma taxawoo waaw di leen ñaanal tamit yéen tamit kontaan naa trop je suis très ému bilaay parce waaw yàlla na yàlla suturaal di gërëm sama doom day Kéba xam nga maa fi yaa bi yëpp di wax Laurent adduna tepp tepp moo gën yuréet nanka nanka rek tepp tepp moo gën yuréet nanka nanka yaa ngi si train bi maa si train bi yàgg yàgg nañ bëkkante si raay bi te ay bés bu ñu bëkkantee waaw di ziar tamit sama gars yi ñoom bop Bopp ndeysaan ñoom Saket fu ñu nekk yàlla na fa yàlla génnee ñoom Siré London gars yi xam nga rek sama mafia lañ far tamit di ñaan yàlla tamit xam nga yàlla génne leen fu ñu ne bonuñu xam nga rek mais yàlla baax na daal amaana yàlla loolu daa gën ci ñoom di gërëm sama papa tamit sama papa maa ngi koy siyaare Dieng Saala bi maa ngi koy bu wéer a wéer a na ci man Baye Fall di la siyaare di kontaan trop baay big seen émission séeréer mbër la woon SBT Média abonné leen ngeen bës seen tous cloche notification bu ko defee vidéo yoo xam ne SBT mi ngi ngeen mën see ànd na ñoon émission bi temps bi jeex na waaye ki invité mooy ndaanaan di xale di champion bokk ci làmb li defal ay morom ñu ñëw defal ko ko tey donc ñu lay sant yow di la gërëm baax ci disponibilité bi leen wax ne SBT la numéro téléphone yi mi noonu woote leen ah, fu ngeen mën di nekk incha